démb forum Sénégal connecté maanaam daal euh, benn forum boo xam ne président Sall teewoon na fa démb euh, wax na fa yu bëree bëri nag waaye ñëwaat na ci réseaux sociaux yi nee na daal li nga xam ne xew na euh, muy ay dérives yu am ci réseaux sociaux yi daal état bi dina ci jël ay responsabilités am ndax jàpp nañu daal kenn du ko bàyyi noonu c'est pas la première fois nag président Sall di wax ci réseaux sociaux yi ak li ci am Baye Assane Mesre mais bi yoon nag moom nee dina ci moom. waaw naa nekk na see nekk mën na see jóg. ndax bu fekkee ni wax nañ takk der yi ñu wër quatorze régions yëpp képp ku yor téléphone raay ñu nangu ko. luy loolu. képp ku yor téléphone raay ñu nangu sa téléphone. luy loolu la jóg si internet bi. waaw lan mooy ku yor téléphone raay. téléphone bii takk der yi ñoo nangu ko. ah yëpp président Macky ah, ba duutuma am accès si TikTok duutuma am accès si YouTube duutuma am accès si dara. waaw buñ nangoo téléphone yi nekk si quatorze régions yi ak machine ordinateur yi. Mm. buñ nappee mu yebal leen bitim réew. ñu dem nangu téléphone yu yaa bitim réew ya nekk foofu doon ay sénégalais. nangu yëpp bu ko defee mu jël yëpp def ko ci pale bi. su boobaa kenn duutu am accès si ci TikTok kenn duutu am accès ci WhatsApp ak yëpp. loolu moom lu mën a nekk la te ñu ngi ko ci xaar. yow président Sall xëy jël sa téléphone bi ngay wuyoo ak di woote di faj sa soxla. waaw mu xëy nangu ko. waaw. léegi pour mi ngi def lu raw loolu. lu mu def. si réew mi kay yaa ngi gis lu raw loolu ñu koy def. comme def na am na ñoo xam bu ñu amoon ñun bu ñu amoon ñu nangu seen téléphone dañuy sant yàlla mais nit kuy dox ñu jàppale ne rap si kaso bi kay nangu sa téléphone gën a noppale te defoo dara. d'accord loolu mooy sa jàngat. waaw na nangu téléphone yëpp. <laughs> Euh, gars yi na nañ ma Assane day nelaw tay de Assane de Assane de ba mu demee manifestation ñëw may laajte parti Bougane bi waa baa ji ndax dagg na ko kii bi euh, Fallou. Assane <laughs> ma ndax Bougane daa wax. te demoon na de <laughs> ci laa génn ci Assane seen wéy Assane dem di laaj ndax di wax na ah di wax na te moo demoon couvrir affaire yi. <laughs> non mais c'est grave. loolu doy na wax yi mu muy mu mm. yegg sama nàkk. Eh, alaaji. waaw <laughs> day dem di photo woog def yëpp bu ñu ko yemalee léegi reportage day dem di photo woog ku ne mu dugg ci. Euh, président Sall de waxaat na ci réseaux sociaux yi dafa mel nag mbir mu ko ñor la. daanaka génn bu mu def dana ci wax bi yoon nag nee na moom faaw ñu jël seeni responsabilité parce que dérive yi dafa bari waa dérive yi euh, bari na mais nañ xool tamit li gën a yokk dérive yi hmm. parce que boo jëlee ay professionnel yoo xamante ni léegi ñemewutuñoo wane lu xew ji réew mi muy télé yi nga xam ne ñooy télé classique yi ah. donc léegi nit ñi dañuy wuti xibaar am na ñoo xamante ni bii ñoom euh, fi la ñuy toog kër ku leen naqari ñu ne taal nañ ko pour di orienter nit ñi pour ñu taal ak di tàngalaat ay vidéo ak di tàngalaat ay vidéo bi defoon na ci audio te loolu moo gën a garaaw li nga xamante ni bi moom la télé yi daan wane. wallaay wallaay parce que tey ñëpp léegi ñi ngi wuti ji xibaar fan ci TikTok yeeg kii la ñuy wut. Hmm. te ñay joxe xibaar ñooñu jànguñu joxe xibaar. wallaay wallaay jànguñu ni ñu ko war a joxee. Hmm. télé yi waneetuñu mais tey la mbir yi gën a garaaw. Hmm. parce léegi da bàyyi ñi nga xamante ni bi. ñooy joxe fausse information yi di joxe fa fële la ñuy toog naan nangam dee na kii def na lii kii def na laa kii def na lële te ki lay wax amul ci benn source bu mu ko teg. mais yow yaa tëj fi nga xam ni fa lañ war a joxee mbir yi. Hmm. professionnels yi ñoom tëdd di nelaw. Hmm. di toog ñoom di seetaan di toog naan ah ñoo dëgg ba dëgg ah ñi war a wax ñoom ñooy toog léegi di seetaan léegi ñi war ta wax ñoom ñooy wax. Hmm. léegi moo tax keroog dama ne euh, dama ne président Macky Sall fële lay toog ca palais ba. du seetaan kii yi gars yi di ko wan TikTok ñu benn waay mel ni son bay nekk ci wetam naa ko non yu vidéo yu yàgg la vidéo yu yàgg nii ngay def ba ah, gars yi xëy na gàllañ ca sa kaw nag nga naan ah nu mu demee nii ah, ñu naan ko vidéo yi daal président yàgg na di bàyyi ñuy wax c'est très important tere yi di wane li xew ci dëkk bi mhm. lu am solo la mhm. parce que boo ko deful ñeneen ñee gën a mën a orienté am na kuy jekk-jekk rek toog këram daal di jékki-jékki partagé quelques vidéos yu yàgg taal nañ fële taal nañ fee fii démarré na fële démarré te fekk dara démarré wul léegi nag yeneen booy jóg. dem osan bu yof bañ naan lekk nañu osan bu yof ba gaa yaa ngi si kaw maa ngi si osan bi tax ma foto ko am waaye nii laal guñ bu ñu naan tàkk na. waaw am na koo xam ne nee na ma man mii léegi laa wax sa ginnaaw ba la ko gonee doo ko dal. parce que ñoo koy ñoo ñoo ñoo ñoo koy. loolu daal ci parce que léegi. <laughs> léegi. léegi yooyu mooy yi nga xamante ni mooy problème xam nga gis nga am na ay réew yoo xam ne bii maîtriser nañ euh, seen internet. lu ci mel ni ay Chine ay Corée du Nord ak kii yooyu mais réew yooyu dañu yàgg ci ñu maîtriser seen peuple maanaam dictature dafa am. Mm-hmm. yaa ngi dégg ñu am noo xam noonu lañ joxe mais tey jii réew yi nga xam ne liberté am na fa yëpp dañoo am problème ak internet parce que. Mm. pour dellu ginnaaw mënta ne. yaa ngi def boo jéemee delloo nit ñi ginnaaw ñee dañoo xamut xam nga nit ki xamut euh, garaawut mën nga koo yamale di leen ko jox kii mais fii réew àddina bi tool nga xëy xëy ne booy privé nga leen internet. Mm-hmm. loolu mënul ne. donc dafa am loo xamante ni bii mënta ne léegi nag moom solution bi man li ma koy wax di ko jox solution. Mm-hmm. mooy tele yi niñ ñu daan wane di couvrir mm-hmm. li xew ci dëkk bi nañ fexe bàyyi tele yi ñu couvrir. bañ leen a tëj waaye bu dee lu ne nii ku ku wane tàkk-tàkk Babacar Diagne ñëw tëj la. Hmm. est-ce que ba tax léegi gars yi waneetuñu ay tàkk-tàkk. xam nga ne ci seen YouTube yi lañ jëm. waaw ñëpp ci seen YouTube yi lañ jëm. fa la ñan jëm. dama ne waxi président ji. waaw ci seen YouTube yi lañ jëm. seen YouTube yi lu mu ci ah seen seen YouTube yi ñu xam. seen YouTube yi lu mu ci ah, baax na. seen administrateur bi mën naa nekk sax euh, euh, ca bitim rek. bi na waa mën naa nekk fu ne. ma ne dirigeant bi. non non loolu mënta ne. am na yoo xamante ne bii boo gisee ma lay wax loolu alaaji. waaw am na fi benn kii buñ paree boo xam ne bëgguma tudd di leen di tooñ mhm. ñaari manifestation yi passé yëpp gisoo leen ñu couvrir te pourtant ay chaîne YouTube lañ comme ñun waaw ñu daan dem ci terrain bi di wane kii yeeg deret jeeg tàkk-tàkk yi waaw mais léegi bu heure kii amee ñu ngi ci seen émission waneetuñ ko waneetuñ seen kii waaw waaw mais xam nga même bu ñu wane boo mooy gën a garaaw ah. xam nga lu tax ah. moom laa la wax ah. waneetut yow booy filmer di yor seen kii di filmer di di loolu waaw looloo gën a garaaw lépp booy mais gars yi faaw ñu wuti xibaar am na yow boo yooyu mi ba muy kaas. ba ko envoyé bu doon télé. xam nga yow tey am na ñun. loolu bari loo xamante ni bi duñ ko fi teg. non non hmm. que dañuy wax ne lii kat baaxul pour nga koy teg. Ah, parce que di nga moytu yenn yi parce que tamit am na loo xamante ni bi da ngay xam ni euh, nit ñi lay seetaan il faut nga nekk responsable mais am na koo xam ni du responsable. Mm-hmm. faalewul dara na affaire yi gën a boy na affaire yi gën a takk loolu mooy mbiram. Mm-hmm. ki nga xam ne loolu mooy gis-gisam loolu mooy xalaatam moom nga xam ne day xëy di wut pour mbir yi tàkk. léegi yow kooku nga ne moom ngay bàyyee mbir yi léegi ñi nga xamante ne bi ñoom dañu doon taxaw pour fexe yëf yi du demee noonu. Mm. yaa ngi dégg di eh, kii naan police lii di wax woo ay kilifa. Mm. kilifa yi di wax ak nit ñi. ànd leen ak dal indi leen ak kii léegi yooyu yëpp éliminé nga ko. gaa yi dañ doon def plateau teg. di wax ne ah réew mi fi mu toll nii il faut que. ñi am kàddu jóg di jéem a woo ay kilifa diine ñuy dugg di. participer am na di woo ay nit ñuy wax naan ah xale yi nañ ànd ak dal. di jéem a fexe ngir ñoom ñooñu sax dañ daan créer ay médiation lu ñu war a def pour kii. pour mbir mi ànd ak daal. Mhm. léegi ñooñu nga ne leen arrêté. léegi bàyyee ko booy naan aywa nag kii fii lekk leen osan bi kii kii waaw <laughs> xoolal kooku kooku di wax naan waaw ab ah, keroog ki ma envoyé <laughs> bu ngeen duggee xale bu jeeg weer fekk mu nooy acca def leen nii ah. xam nga c'est que léegi ñooñu nga bàyyee mbir ah. yow yaa ngi bàyyee ñooñu mbir mi ba noppi naan da nga koy régler ah. waaw parce que pour régler ko <laughs> il faut nga jël ñi nga xam ne euh. jàngi woon nañ loolu wa ilaa ñi nga xam ne bi ay responsable lañ nga fexe leen a bàyyi ñuy wax hmm. di joxe seen xalaat léegi boo bàyyee booy bi ci koñ bi amee boo waaye bàyyee loolu mën na jékki-jékki daal lekk nañ osan bu diw sàngam léegi waa osan bëri dañuy bëgg a lekk seen osan dañuy ñëw aussi non seulement sax booy dañuy toog <laughs> ba nga dëgg de. ah loolu la de. koñ bu ci nekk bëgg a lekk sa sang. non ah, te su boobaa yow yaa bàyyi xabaar yi. Ah, yaa leen ko bàyyee ko bëgg a jox ñoo ko bàyyee gars yi. léegi bu ñu ko bàyyee gars yi. léegi ñoom dañoo fekk ñi war sa wax. Hmm. ñu ne ñi war a wax eh yéen noppi leen yéen waru leen a wax léegi ñu war a ñu war ñu war a wax daal di toog te seen bopp. ñu war a wax nag yor coow li. kër benn reporter daa taxaw naan fi ne nii gars yi ñëw waaye ñu ngi ñëw ndànk na xam naa si kanam tuuti léegi ñëpp egg si. voilà <laughs> te xam nga xam nga la moo garaaw. <laughs> yow da ngay xeeb ñuy seetaan loolu da ngay gis benn waaye buy def live léegi mille personnes di ko seetaan. nga jékki-jékki Afrique ah. deux mille personnes di ko seetaan. la woote la. yaa ngi dégg. Uh-huh. léegi yow boo jéemut a fexe loolu jóge fi te loolu nag il faut nga bàyyi ñi nga xamante ne bi tey jii am na koo xam ne bu toogee. Uh-huh. tey de ñii ñu ngi wax ci mbir mi. Mhm. ñii naa leen seetaan. waaw parce day xool ñu responsable. du dem am na booy bu daan wax. waaw ci ñi mu faawoon daan leen déglu. léegi kooku waxatul day jéem a wax. waaw mhm. ah. waaw waaw. tey bi moom bu waxee dana day day gën a tàngal waa ji affaire il faut nga tàng. gaa génn gu nga xam ne kanam tuuti dinañ génn. <laughs> léegi da ngay gis reporter bu dem koo xam ne day yor kéem di kii ba nag boole kook di saaga. mi ngi filmer di saaga. waaw di saaga te moom mooy filmer. waaw ah. ñii nañ leen lii nañ def laa. waaw nañ nangam nangam. dëgg dëgg de quand même. kon boog mi ngi noonu président Sall. sa conseil ci pale bi euh, lii alaaji wax xel la bis bu ñu fexee ba wax kat yi noppi ñeneen ñu wërta wax ñooy wax te duñ xam nuñ koy waxee mm-hmm. loolu nag gis nañ ko ay yoonu yoonu yoonu muy am ay dérive yoo xam day xew ci réseaux sociaux xam nga ñun ñi am na vidéo yoo xam duñ ko kii mm-hmm. fi mu doon nee xabaaru gars yi Ousmane Sonko yi sànq bi ñu ko kii man ak moo nu ne traité nañ ko ko pour ajee ko noonu te loolu lépp li ko waral mooy dañoo jàpp ni responsable lañ ci li ñu nekk